wasalaam ma ni ko hmm. maa yërëm sa noon ngoy yow ku la yeb dalaa fekk ngay nelaw waaye boo yeewoo képp ku la doon fontoo mbaa ku lay yeb day sawi te tëdd mi ngi nii un million two thousand dollar ngoy lii la def waay pap yàlla sa jàmm yàgg na xola tegoo ma bët hmm. ñeewuloo ma bëgg nga ma safoo nga ma hmm. faale nga ma ku la laal ma yëngu I love ko guerre. <laughs> la laal yëngu man mbaay. ay sa macha allah ah, million. million gisoo ma damaa yeewu rek solo ma def ma dara un million deux <laughs> gisoo ma ma def sama robu jàllaa bi. wasalaam ma ni ko. Hmm. maa yërëm sa noon ngoy hmm. yow ku la yab dalaa fekk ngay nelaw hmm. waaye boo yeewoo képp ku la doon fontoo mbaa ku lay yab day sawita te di mi ngi nii un million two thousand dollar ngoy lii la def yàlla sa jàmm yàgg na xola tegoo ma bëgg nga ma safoo nga ma faale nga ma ku la laal ma yëngu I love you Gambian. ku la laal ma déclaré <laughs> la laal yëngu man mbaay. ay so much we love you. ah kay so million. gisoo ma damaa yeewu rek solo ma def ma dara un million deux cent. <laughs> solo ma def ma dara gisoo ma ma def sama robu jàllaa